أتنا منوكو قول والجن أوف ملك منظار زونا دار الفجاج أتنا منوكو قول والجن أوف ملك منظار زونا دار الفجاج أتنا منوكو قول والجن أوف ملك منظار daayiray maam jaara ya nekk ca gox ba. di gën a jaxasoo ak daayiray maam jaara ya ne ca gox ba. di leen gën a xamal liggéey bi. di leen ci gën a soññi. loolu am na ñu bari ñu ko tàmbali. loolu am na ñu bari ñu ko tàmbali. fañ ko uh, njëkk a tàmbali mooy doon mooy Bambey. ki démb def nañ ko Kaffrine. bañ a yem waaye damaa bëgg mu bañ a yem foofu. kenn ku fa nga nekk. kenn ku nekk fa nga nekk. donte sa kër la. sa kër la. nga di ko fa gën a xamle. gën a leeral liggéey bi ña nga xam ne xamuñu ko. gën a leeral liggéey bi ña xam ne xamuñu ko. ndax liggéey bi rëy na. te am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. waxtu wu ne day yokku. kon nag ñëpp. ñun ñëpp. nanu sasoo. di ko gën a xamle di ci gën a xiirtal nit ñi ndax kat loolu nee na lii nga xam ne moom la liggéey bi di def mooy sunu warugar nun ñëpp léegi mel na ne thème bi ñu doon def mooy at turaas noonu nag sunu turaas ci sëñ tubaab mooy lii mooy jàngale jàng xamle kon nag loolu daara ji dara jiituwu ko ci na ci kenn ku nekk gën a taxaw ca fa nga nekk te loolu la ci ëpp solo mooy daayiray maam jaara ya nekk ya nekk ca fa nga nekk nga jaxasoo ak ñoom di leen soññ même jëwriñ ya fa nekk ngeen xam leen di leen soññ ci liggéey bi te di leen gën a leeral itam liggéey bi nga xam ne mooy ak dolliku ci liggéey bi mooy mooy parrainage bi te loolu kenn ku nekk fa nga nekk ak say xarit ak say àndandoo ku ci bëgg lu baax mën nga leen ko wax ndax loolu kenn ku ne mën nga cee liggéey jërë ngeen jëf ba subaak jàmm incha allah أمتنا منوكو خولنت والجنو في الملك منوكو منوكو خولنت والجنو في الملك منوكو